ay mi ngi noonu ami internet Thiès Info ñu nuyu leen bu baax a baax bégg leen dellu itam daal leen di kontaane bu baax a baax mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi kenn ku ci nekk ci yéen fekk nañ la fa nga nekk ni la jàpp loxo daal la siyaar bégg la jox la sa wàccuwaay yéen ñuy teew lu moo xam ci biir réew bitim réew saa su nekk rek nii lañ koy àndee ak yéen wax li nga xamante ni moom moo euh, xew euh, ci réew mu askanu sunu gaal euh, du nu bàyyi leen lépp la ñuy àndee ak yéen mbokk yi laataa ñuy sori dañuy dem seeti ki nga xamante ni également moom moo di ki jëloon papaam papaam waajuram wu góor ak papa ni mu foore ci li nga xamante ni moom moo di eh, ci ci doom ñii di teral seen papa yi ñii di yóbbu màkk seen papa yi ñii di jàppale seen papa yi ñii di sonn ngir seen papa ñii di guddee àll ngir seen papa moom ci jëmmi boppam également ca Kër Massar la mu def baayam moo di jàpp baayam daal wut la nga xamante ni moo di almet ak ay échange ak yu ne mel kos baayam kos baayam ba mu tàkk baay ba tàkk di jëfa fa fi mu toll nii dañ ko dafa séenee euh, kii bu wetul lu ñu naan perpétuer moo nar a dal ci kawam mu nekk mbir moo xamante ne mbir mu doy la donc kon waajur dafa nekk loo xam ne du moroom lees war a euh, def li nga xamante ni moom moo di euh, jàppale la mbokk yi sunu gaynde jigéen yi ca anbël ba ña ngaa wane seen bopp fi mu toll nii tembe ña ngay mel ni ay gaynde laa la wax wane ni ay dëgg dëgg dëgg gaynde la waaw am na ñu naan ma. waxal ci diggante eh, Sidi Diop ak eh, kii Waly sekk man diggante Sidi ak Waly lu sama yoon ah njàpp mu dem ci concert Sidi Diop njàpp mu dem ci concert Sidi déggal Waly Seck damaa jum njàpp mu dem ci concert Waly Seck nekk fa di fa feej ba ni si ba ni Waly yaay sama papa Waly Seck ni ko yow waxuma la yow waaye sa patron sax may baayam man loolu lu sama yoon loolu duma ci wax de waaye li ci gën a am solo mooy la Siri Diop tontu ah waaw ni ko man di woy sama baay Siri Diop la ma tuddee ba ma juddoo moo jël xaalisam reyal ma xar nu tuddee ma ko awma beneen baay bu dul sama baay man patron laa Siri Diop wax de waxuma sama yoon nekku ci mu ni man patron laa ni ngeen ma gisee nii man ku ma bëgg a jur di nga jur ñii nekk sama ginnaaw ñëpp boobu ñoom Moussa Camara ak gaayam yooyu nga xamante ni ñoom ñooy staff bi yëpp ñu ngi ci ginnaawam mu ni ku ma bëgg a jur di nga leen jurandoo ñoom ñëpp mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la man damaa man benn affaire damaa jaaxal ci réew mi ngaaka ak lu birig problème problème ba ba man ba ma leen xamee ba léegi ñoom ñaar seen bës ba ba léegi crashante bu yàgg ba ba nekk ni ñoom ñaar seen problème yi day continuer fii ne nag dégg naa dégg ñi leer na dégg naa ñu ne am na ku gañe lu ci am ba des daal am na ku doon laajte ay riim kuñ doon laaji riim naa ko ana riim yi mun naa ay riim mbirim beeg yu kenn xamul xawma ma ku gañe man sama yoon niwu ci de waaye askan bi daal xam naa ne am na kun ci jox bopp am na ñu dëkk mbuur ñu wax am na ñu dëkk géejawaay ñu wax ku gañe à vos ñi nga xamante ni yéen a ngi nuy teewlu du yéen a ma ko gën a xam mi ngoog waaye daal en tout cas coow li bari na diggante Sidi Diop Wally Seck diggante Ngaaka ak ma indiwaat beneen diggante man naa indi beneen diggante de Modou Lo ak Balla Gaye nga dee dañuy laale ñoom ñaar nii lañu def ba tey mën naa indiwaat beneen diggante de hmm. ah Ousmane Sonko <laughs> Ousmane Sonko ak kan ah waaw ah, baax na léegi nag gaa yi ah déedéet déedéet yow bu man ni yeggaleel wax ji xam nga lan la yaa ngi commenté bindu ko ci suuf neel Ousmane Sonko diw waaw waxal bindu ko ci suuf yow ayca léegi nag gaa yi ñu indi leen benn waay boo xamante ni bañ ko découvrir ak léegi ci li nga xamante ni benn mbir rek lañ ko découvrir waaw moom ma nga dëkk ca Jurbel waaw Diourbel ak Ndakaaru Njaay Jal Diop nee nañ cent soixante kilomètres la waa ji ci jëmmi boppam ku sew la ku sew waaye ci jëmi boppam ku timit la timit mooy bëri kersa tey jii bu ngeen daje woon fii yéen ñaar du la xool waaw waaye ci jëmi boppam ku tuuti la maa la wax lii moom nag gars yi ñu ngi ko commencé découvrir janvier 2026 lañ ko commencé découvrir ban ko arrêté ca Touba waaw te moom nee nañu boo heure bu dekkee di def li nga xamante ni moo di sàcc ak jël ak yu ni mel ak yooyu comme maanaam bu dee def li nga xamante moom lañ koy jàppee du moom du kii quoi du agressif comme yenn sàcc yi nga xam ne ñëw nangu li nga yor jénn arme fi fii tiire fii nangam nangam ñoom nee nañu mil noonu yaa ngi dégg donc moom jàpp nañ ko 2016 yaa ngi dégg mais tamit euh, prison ba fa nga xamante ni moom moo di rëbës évadé na fa 2015 évadé na tamit le 20 janvier 2016 yaa ngi dégg moom ci jëmmi boppam dem na bañ koy woowee Michael Escoffield bu askanu sunu gaal maa ngi ñëw de yaa ngi dégg moom ci jëmmi boppam nee ñu nekk na koo xamante ni nit ñi ba nekk ne xamuñu moom bu nekkee ci li nga xamante ni moom moo di kaso bi ana naka lay def ba génn ci. pourtant nag aw tur la yor comme Sénégalais yëpp ni ni ni ni Fall Damel ameew tur Jabel amu tur Samba am tur euh, Fat Ndaw am tur moom itam noonu la amee tur moom mi ngi woy ci turu Moodu Fall waaye li jaaxal askan bi mooy ni mu mel ba yor jikko joo xamante ni sax dañoo foog ni kii sax est-ce que nit la moo tax askanu sunu gaal yëpp mandargaalee ko booy Djiné moom Moodu Fall Boy Djiné ci jëmi boppam. nekk na koo xamante ni wax naa leen ko léegi ku timide la ab benn avocat mi ngi fësal ak di xam le ni moom ci jëmi boppam bu ngeen dajawoon bu ñu nee ne kii mooy booy junne da naan non du moom parce que du siggi xool nit ndax kersa gu bari waaye tuutaay ba bu ñu kii nii la da nga naan du moom te itam moom li nga xamante ni moom lañ koy jàppee lu ci ëpp mooy sàcc boo xamante ni day ànd ak mbooloo dem dem dem dem jëli waaw booy junne nag dañ koo ngoyati te pourtant bu yàggul dara ci mois d'août bi lañ ko libéré ñëpp naan ah lu ku yàgg ci teen baag fekk la faak lu lu waay lu waay muñ mu jeex lu waay nangam lu waay nangam ba dem ba booy Djiné nag am liberté am nag nekkaat à l'aise di dundaat ci réewum askanu Sénégal comme ni citoyen yëpp di dundee ci réewum waaye Boy Djiné moomu nag moom ci jëmi boppam fi mu toll nii tembe may wax ak yéen nii ngoyaat nanu ko xaw ma lu may wax sax moyeti nan ko ndax heure bu nekkee ci prison bi bu génnee dañ naan rëccati na boo jinne moyeti nan ko te nee na luxusul moom moom bu génnee buy génn ci prison du luxus du dara ay stratagème lay teg ba ba ba ni ba ni pëccët daw waaye jàpp nañ ko moom ca Touba la doon defee li nga xamante ni moom moo di sàq ci wërsëgu jàmbur maanaam daa xeeb wërsëgam doon sàq ci wërsëgu jàmbur ba nu ngooy ko Touba la ko doon defee ci génn kër di fa sàcc moom ak ñeneen ñi mu àndaloon moom booy jinne nag ñi ngi ko jàppee diggante xombol ak Thiès ña ko jàpp mooy waa recherche bu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar fekk nañ ko lézère xam ngeen lézère lézère coupant mooy yooyu rek nga xamante ni day dagg fekk nañ ko akub chalumeau fekk nañ ko ay ay ay xam ngeen brin ah marto ak kagul fekke nañ koy tem ay gants ak wata boo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay yi ñoom day xamle nañ ni wata ba ci jëmmi boppam amuti këyit ñu neeti ko niib dem na ba koy tëkkalee moom boo jinne ak Michael Scofield waaye Michael Scofield xam ngeen ko prison break na mu lijjante woon ba génn ca kaso ba kon nag Modou boo jinne yow mi nga xamante ne yaa ngi may teewlu ma waxaat ko su fekkente ni daa am loo koy yóbbante ana lan lay doon nga bindal ma ko ci commentaire yi ndax kat mbir mi nekk na loo xamante ni mbir mu doy waar la mbokk yi buñ ca noppee dañuy wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk seen doom ci li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllum bato yi déggal gaal yi am na ci benn waajur boo xamante ni benn mère boo xamante ni. li naan mbir mën naa dem ba dof loola dëgg la am na ci benn maire boo xamante ni moom nee na ba nëgg ni gëmul ni doom ji ñàkk na bakkanam ci bato yi moom jàpp na ni ba nëgg ni doom ji daa rëcc moom dem na sax ndeysaan doom ak fu mu toll ci yaay dem na sax ndeysaan ba bu demee ba benn instant bu tëddee day dégg doom ji tudd aw turam naa ko yaay booy wala muy dégg baatu doom ji waaye nee na heure bu ko déggee baatu doom ji ci gént gi day kontaan feeru kontaan boo xamante ni kenn du xam nees ko mën a dippee kon kontaan googu muy kontaan nag mooy tax mu nee na danaan xifeet ni bërit ci nelaw yi xool bu xoolee gisul kenn àll ni seen ndaw mu wëlbatikuwaat di jooy ay jooyam mu nekk loo xamante ni lu doy waar la kon nag doom amel na àq yaay waaye yaay itam amel na àq doom kon nag yéen doom yi xam leen bu baax a baax li ngeen di def tekki ci réew mi toog fi liggéey fi mën naa nekk bu nu ko gëmee waaye ñi ngànk réew mi ne ci kawit nañ jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo di jeunesse bi mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom lañ leen indiloon ko defee comme ni ma ko defee démb rek laa koy defee waat tey euh, dugg ca la nga xamante ni moom moo di ca revue de presse ba mboole seen ñoo fa jot a commenté euh, diggante bi ñu ko dugalee ak léegi ñu daal tudd seen tur xel leen ci café yi ñoom itam ñu naan ba simbaleexu également ayca pour loolu laa fekk ci kaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama xarit la nit ku baax la également maa ngi koy jaajëfal di ko jox wàcc waayam borom Argentine kenn du moom ci réew mi màgget mbay Mbaye itam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Adama Diagne moom itam commenté na di nuyu Issa Dangoura moom itam ci commentaire yi di nuyu Laat Diop Laat Bool marché central la nekk bu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar moom Laat di jaay lépp lu jëm ci wàllum vaisselle mankaat nuyu bu baax a baax di ko bëgg

commentaire Habib di bëgg esprit Gossas TV nee benn événement laay waajal muy le 24 décembre te maa koy waajal muy sargal les icônes de ma invité ci ñëpp bàyyiwu ma kenn mbokk may nuyu ji baax également di nuy bu baax a baax Cheikh Omar Diop itam maa ngi kaa di biggee ma biggee Guèye di biggee euh, Modou Leye maa ngi koy biggee bu baax a baax princesse itam maa ngi kaa nuyu di biggee Khadim Diagne di biggee Fatoumata Bintu Diallo maa ngi kaa nuyu bu baax a baax Absa Cheikh Wade di biggee Baye Modou Yade ñoom ñëpp dañuy teewlu ma biggee sama xarit na maa ngi koy biggee di Ndiaye euh, maa ngi bu baax a baax a baax a baax a baax waay waaw waaw jërëjëf waay di biggee Cheikh Saad bu Fall ab nabien la ca pirum dëri maa ngi koy biggee di biggee Mame Samba John Lamine Ndiaye ak Maodo Kane képp koo xamante ni yaa ngi may teewlu mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi noonu la yëkkatee kaddu gi jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam kii ma jaakaar loolu di jabel ndaanaan ku li faat loolu ndaanaan mankaan nuyu di nuyu képp ku ñuy teewlu àdduna wërngël képp jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew mi sunu gaal def ko ci képp ku ñuy teewlu seen mbokk seen xarit Fall Damel sët ci Bour Sine ngeen jëf